plante la semaine lañ wara ñew waye nak dañuy def pause tay duñ wax ci benn plante ci lan lañuy wax manam plante yi nan lañ leen di udee parce que loolu tam dafa dafa ma dafa war a xam parce que dañ ci dégg man damay dégg yu bari bari ñukay wax nak ñu bëgg tay nga leeral ñuko eh, eh. manam plante yi xobi heure yi nga leen wara dag hmm. waro leen dag heure yi heure yi nga war a xas waroo xas heure yi mm-hmm. heure yi nga war a gas reen waroo gas heure yi mm-hmm. ak nii nga ko war a gasee da nga war a jàpp boo koy gas da nga war a suul dara da nga war a da war a yëpp ay wala nga war a jàng ay faatixa da ngay jàng fa la ak naasi léegi nag loolu mm-hmm. ñu bëgg professeur nga baaxu ci maanaam plante yi maanaam nan lañ leen di utee ci wàllum xob ci wàllum xas ak ci wàllum uh, reen am na tam ku ma dégg mu ne garab yi am na yoo ci xam dañuy nelaw bu guddi Mm-hmm. bu ñuy nelaw bu ko defee boo ñëwee dagg xob yi xob yi duñu efficace boo ñu xëyee dañuy yeewu xob yi tàllalu mm-hmm. effectivement seetlu naa am na garab yoo xam ni guddi gi mm-hmm. xob yi dañuy keppaloo yi nekk ñaari xob ni xob yi am yoon dañuy tëju soo xëyee xob yi bu naajee xob bi ubbeekuwaat loolu gis naa wax ci ay garab yu bari léegi nag loolu yëpp nag professeur nag ñu ngi lay déglu nga lay am. <laughs> tey nag indi nga problème moom <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum wa rahmatulah lay nuyu di la ziara. di la nuyu mbokku yëpp nag. Mhm. tey moom teg nga ah, <laughs> mais nag waaw xam naa leer gi du yomb moom. Mhm. mais nag ci wax li ñu mën rek ak li ñu mhm. mooy li may faral nekk réew moo xam ne. Euh, liggéey ñu duñ bàyyi ko liggéey. maanaam tey boo waxee def benn émission bi bëri dina la. Mhm. Eh, commentaire yi dañ ci d' accord. waaw waaw te fekk question bi mooy yaatu. waaw waaw question bi dafa nekk li ñuy wax une question ouverte. Mhm. xam nga bokkul ak une question fermée. comme mhm. ñaari façon de question question ouverte ak question fermée. bii nag dafa ouverte léegi nag ouverte boobu. day tax da ngay wax ba jeexal. am koo xam ne day dégg ni am na loo waxul. te dina leer tuuti dinaa ko jéem a leeral. fekk li nga ci xam moom nga wax. waaw kay. wala sax dégg la wala sax ay domaine la mhm. xam nga tey garab mhm. euh, dafa bëri mhm. lu mën a faj am na xam dañ ciy faj faj rek la def ci garab bi am na ñoo xam ne fajuñu ci dañ ciy ñaan exemple am na wërsëg lañ ci joxe am ñoo xam ni du wërsëg mais bayre lañ ciy joxe ci garab bi bayre lañ ci defar am ñoo xam ne protection lañ ci defar ci garab yi la am rek yëpp garab lañ koy ñun Afrique dañ ko ci def am ñoo xam ne protection am ñoo xam ne garab sàcc lañ ciy defar mm-hmm. am ñoo xam ni dañ ci liggéey pour mu wàcc wala mu dee wala mu am si xam nga mm-hmm. am ñoo xam ne am ñoo xam ne ak loolu du kon dafa bëri ay branche yu bokkul te yëpp ci garab gi la léegi nag su defee mm-hmm. branche bu ci nekk dafa am lu ñu koy wutee ji ok je comprends c'est tey ki bëgg bayre en général mën nay dem ñun ko di yóbbaale sànqal soo jënd garab yi da yóbbaale soow jënd garab yi wala da ngay yóbbaale morceau Tiger exemple am na ñu def loolu wala nga nga yóbbaale coton côté wala da ngay yóbbaale xaalis moo koy jënd daal am yoo xam ne da ngay lu weex comme lan am ñoo xam ne dañuy liggéey nit naan la garab boo koy wuti kenn du la am ñoo xam ne au sol weex loolu dañ naan la boo koy wuti doo sol yére mm-hmm. doo sol tubee exemple wax dëgg yàlla doo sol tubee wax waaw am yoo xam ne daa am noo koy xase quatre côté yi mm-hmm. am yoo xam ne dafa am jour bu ñu leen di wuti mm-hmm. am yoo xam ne da nga leen di jëndee soow am yoo xam ne da nga leen di jëndee ponto wala hmm. am na yoo xam ne gis nga dafa bari. waaw waaw waaw waaw. maanaam boobu am na ko yëmbal am na guy bi nekkoon foofu. waaw pont yu bari laa suñu laaj ko ci. waaw kay bu ko defee nag dafa bari loo xamante ni ku nekk na ngay wutee. li ngay doyee garab gi. waaw moom mooy dépend moom mooy moom mooy moom mooy euh, moom mooy euh, conditionné. conditionné ni ngay wutee garab gi waaw kay ça dépend ci li nga koy doyee. waaw ok yoo xam ne lem nga yóbbu diw ko ci garab gi am yoo xam ne dexu alxames ngay diw ko ci garab gi. soo ko dagg soo ko dagg am yoo xam ne da ngay wut daw xam alxames diw ko ci alxames àjjuma nga ñëw dagg si ma am yoo xam ne da nga yóbbaale sànqal sotti ko ca ba suba nga ñëwaat soo ko soo ko soo ko dagg as xam nga fi dafa bari nag ah. boo koy wax doo fi jóg moo tax boo yooyu boo ko indiwul nag am na koo xam ne moom si wuti garab mhm. xëy na am na lu muy sol wala lu muy jàng mhm. soo ko waxul nag day yaakaar ni ah boo nee da ngay dem da nga xob rek mu sol nangam waaw la mu koy doyee <laughs> yow kii da koy doyee mooy li ma la léegi nag sëriñ bi nee naa la mën na dem ci garab gi fekk nga bëgg rey nit ba digg-digg ñu nit dañ koy daggal reer waaw waaw waaw dafa am waaw dañuy seen xam-xam dañ koy dégg ñoo xam ne ñu bëgg a wàccee nit ñu nit nekk ci benn place mm-hmm. wala ñu feebar loolu nga tooñ la ñu ñu daggal la weer mm-hmm. yooyu dafay am mm-hmm. donc yooyu dafa am yoo xam ne saar yu ñuy jàng mën na nekk comprendre donc façon yooyu yëpp dafa bëri boo fii ba suba du jeex loolu moom la <laughs> donc loolu mooy boobu benn benn benn pàcc bi benn pàcc bi léegi bi nag mu nekk partie bi nga xam ne ñun moom la ñuy wax mooy plante l'islam nga xam ne ci wàllu faj nga xamante ni seen loolu euh, ki nekk Sénégal ki nekk Europe ak chinois beeg yooyu ñoom de xooluñu loolu. ñoom li ñu xool mooy principe actif. sar ñeent yi nekk ci garab yi garab yi am ah, nañ soxla pour faj. ok te nag ñun foofu la ñu tey. waaw léegi nag su lii soo ko développé wul ñu bëri soo waxee côté benn dañu ne non garab kenn du ko heure bi da ngay nangam nangam nangam fekk garab bi dañ ko wut guddi. Mhm. ci li ma am ñooñu am na ñoo xam ne guddi lañ koy mhm. am ñoo xam ne njolloor lañ koy wut. Mhm. parce que ça dépend ci liñ koy mhm. am na ñoo xam ne ajjuma nga koy wut am na ñoo xam ne première fan dimanche ci weer nga koy wut. donc yooyu yëpp <laughs> mu nit ñi la te a doyee garab dafa bari te yaatu te yaatu waaw kay moo tax kon amul benn outil waaw kay amul benn outil rek amul outil yu bari am dëgg la waaw loolu foog xam ko dèjà. moom moom sama bopp léegi nag ñu ñëw ci ñun li ñu tax a jóg. Hmm. waaye kii lu muy wutee li muy xam bi xëy na noonu lay wutee. Hmm. américain bi noonu hmm. ci loolu parce que defoo ci lu mystique. waaw kay waaye ferñeent ji yàlla def. waaw te nga soxla. nag loolu. dañ ne la boo koy wuti garab gi pour mu pour mu mën la jariñ mhm. c'est le bon moment euh, bon moment loolu la ñuy définir rek bon moment bon temps exemple mhm. en médecine ah, mooy lan bi nga xamante ni exemple comme ni nga ko waxee sax sax comme ni ko waaj waxee mhm. maanaam naaj bi du tàng maanaam boo xëyoon tey entre huit heures ba dix heures heure boobu nga mm, ne température dafa dafa yem neex na te tàngooru principe actif yi demagul mm-hmm. su dix heures xasee passé am na ci yoo xam ne principe actif yi fa nekkoon mm-hmm. dem nañ waaw mm-hmm. ko léegi nag moo tax heure yooyu duñ ko duñ ko duñ ko faral di euh, garab à partir de dix heures jëm une heure yooyu nag di tàng principe actif yi nga soxla woon il faut nekk ndax mën nga diggante dix heures suba ba cinq heures ci ngoon heure boobu la tàngaay la lañ day tàng jër quoi cinq heures xasee passé rek température bi commencé waat di wàcc ndax jëm timis jëm timis léegi nag heure boobu tamit ngay commencé waat cinq heures ba timis maanaam moo tax ñu ne c'est le bon moment le bon mm-hmm. période boobu moo gën a favorable ba ci kii faj loolu yaa ngi comprendre na waaw kay bon kay boo gisee ñuy wax loolu loolu la ñuy wax ci ci wàllu médecine nag laay wax yow ci wàllu beneen bi ci wàllu baatin ci wàllu baatin waaw bu ko defee nag boobu ngay jël donc bu defee foofu principe actif yi dañuy chargé wu hmm. moom ngay wutee garab yi instant boobu hmm. léegi nag instant boobu tamit boo wut comme comme ci wàllu kii tuuti rek médecine comme ni ñu jàngal tamit ci wàllu baatin mooy garab bi moom boo koy wut fexeel ginnaaw booy dagg dara si waaw maanaam sa sa takk ndeer bu mu tàppee ci garab bi bu ci garab bi parce que loolu am la gën a jëm daal waaw côté baatin la jëm mais tam baax na que garab yi yëpp yow ñu dafa am yoo xam ne dañu am bopp luy demee noonu waaw waaw te tamit garab yi mystique mystique comme buy rek comme buy ay pofte nag yu demee noonu te léegi boo buffet ke bu fekkee surtout racine bi boo koy dagg daggaa sa reen am na ñaata fan wala mën ngaa sa reen comme ngay gas reen bi waaw mais fekk na yow sa takk ndeer mi ngi tàppee ci ci fi ngay gas reen bi fa lay ko nga dagg ko voilà jant bi dalaa ah d' accord d' accord boo gisee nag di deh. Hmm. ci lu mistik sax loolu la bu ñu ko xam mais nga bëgg moom mooy sax yaa koy njëkk a def. Ah, sa gis sa takk der doo ko dagaale doo ko doo ko dagaale daal. Hmm. da lay wan toujours ginnaaw. Hmm. donc foofu tamit ci wàllu baatin ñun jàngaloon nañ ñu waaw léegi ñu bëri xam ne dafa nga xam ne sax maam bi mu ko daan tuddi garab. Hmm. ci laa ko njëkk déggee daan la garab bu sant euh, bu am dégg rek. su demee da nga koy nuyu nga naam ñas. maanaam nga tari sa faatiha bu la neexee. Mm, loolu moom garab yëpp la quoi même bu fekkee xam nga ñun comme ay africain leen. mën nañ ko cee boole. maanaam ñëw garab yi am dëgg yëpp soo ci dagg wala dara wala nga ko laal mhm. ñëwul nuyu ko mhm. jàng sa faate wala dara wala nga nuyu ko ndax am ko ndax am ñas. ñëpp loolu daal sax pour. pour li ngay jël ci moom. waaw kay nga am respect ci moom daal. waaw kay waaw. c'est vrai loolu sax baax na nuyu ko quoi nuyu ko ñu ko naam ñas mooy garab yi am dëgg rek mooy sumpu. Mhm. Euh, yi nga xam ne am nañ dëgg daal. ils sont plus CDM ak garab genre garab yooyu. waaw ah. donc boo ñas lañ sant. d'accord nga xam ne amuñu dëkk nag. xam mm-hmm. ne garab yi dañoo la rek mais ay mango yu demee la mm-hmm. boo ñëwee da nga xam naam lay. Mm-hmm. ñaari groupe la. ñaari groupe garab yi am dégg yëpp. waaw maam ñas lañ leen di santale. garab yi amul dégg yëpp. lay lay lañ leen di santale. voilà loolu c'est simple de. c'est simple yomb na boo ko xam benn yoon baax na. bu ko defee moom noonu lañ koy dajee léegi nag bu ko defee nag ngay éviter les récoltes pendant les chaleurs comme li ñu waxoon temps bu naaj bu tàng. Mm-hmm. bu fekkee dañ ci bëgg am principe actif heure boobu. moom mm-hmm. nga moytu dagg garab bi bu fekkee jublu woo ci wàllu bi ñu doon waxtaanee. Mm-hmm. donc kon bon moment bon temps boobu ñu doon wax. day ñëwaat. d'accord donc bu li mën a bu fekkee tamit. soxla woo oh, kii bi. maanaam garab bi soxla woo fleur yi. waaw tóortóor yi. waaw waaw soo koy dagg. bañ a am tóortóor moo gën. Hmm, parce que bi am tóortóor yi nga bañ faa dagg. waaw maanaam non bu garab bi tóortóoragul. waaw bu tóortóoragul. Hmm. instant boobu la pression ak ci gën a développé. ah d' accord d' mën naa nekk nga dag sooy ngay dagg garab gi période boo xam ni tóortóorul. waaw période boobu parce que foofu. Hmm. Euh, scientifique yi nee amee floraison. maanaam bu fekkee ñu tóortóor. pression active ci tóortóor bu la gën a ëppee. ah tey c'est logique na maanaam. ok waaw yan léegi nag su fekkee yow da nga soxla fleur mhm. nga dem nga ràññ fleur yi bu fekkee soxla wu fleur yi xob yi nga soxla wala reen bi. Mhm. principe actif yi. Mhm. su fekkee te ni garab yi dafa am ay fleur yow li nga soxla woon xamal ne ci ëpp ñu ci fleur yi. loolu xel na mu eh, yooyu. garab ko may fleur mi ngi mel ni comme jigéen ko ëmb.

donc bu fekkee da nga koy dagg tamit mhm. scientifique yi ci baati scientifique la ñu wax ba léegi de wax wuñ ci wax ñu ci wàllu baati ngay bu fekkente ni nga yëngal garab gi mhm. ba mu yëngu su fekkee garab boobu mën a yëngal gësam gësam ko ba yëngu ba yëngu ba yëngu mhm. ba doog a commencé parce que foofu duñ ci jublu bépp gunóor bu nekkoon ci kaw wala sax wala dara mën na wat bañ ko yóbbaale bañ ko yóbbaale foofu loolu la def boo ñëwee gis garab bi wala branche bi ngay dagg bu mm-hmm. fekkee garab bi dafa ngande ah. branche bi nga war a ne yéeg bi gësam foofu nga xamante ni fu nekkoon yëpp wàcc na waaye bon lu ci bëri wàcc na woon comprendre mm-hmm. nga doog a nag bi ngay dagg soo nga dagg donc léegi nag nga dagg sa garab léegi nag boo daggee sa garab wala nga xas yaa xam wala nga def sa dagg say reen mm-hmm. nga yóbbu léegi nag mu des beneen phase boo xam ne mooy séchage bi ak yu demee noonu. waaw pré conditionnement bi balaa nekk sunguf wala la nekk sunguf la dara. Mhm. loolu tamit ci tuuti quoi xam waaw ah, waaw waaw jar na ko jar na ko léegi foofu tamit comme ni ñu wax noonu li tax ngay yëngaloon branche yi. Mhm. wala garab yi mooy gunóor yi fa nekk wala. Ah, sax yi am lu lu lu baaxul ba fa ah. léegi nag foofu la ñuy tamit boo demee ba koy weer tamit loolu la préférence. garab gi bala nga koy weer am benn xas. ndax xob yi nga nettoyé leen ba pare. nettoyé def naa ko paam wuti garab foofu ci àll bi noonu. dëgg la benn plante bu wërëm wërëm ma ne mais bu ma def. ndox day waa poussière bi. bi dafa ah. mën a lii boo ko boo ko. boo jëloon noonu weer ko ko weer ko wal ko. Ah. mën sax nit ki feebar. bi yëpp ngay walaale. waaw. comme li nga wax ci gësam bi tamit bo daggee rek ñëw nonu eh, tek mu woow fekk ay gunoon niñ ci won woon laxasu wala ay xob yo xamne dama lay lënd da nga koy jël wala rek wala rek mu indi te sûrement am nañu wet mo yeen saa gis garab yo xamne sûrement parce que dañuy dagg di taxar di jaay non taxaar waaw léegi nag loolu mooy problème ça dit que euh, hygiénique boobu ça dit il faut processus boobu gars yi di ko di ko respecter tout quoi ñam la ci doomu adam biir bi la jëm mm-hmm. légui boko ko rek problème bi ëpp solo mooy séchage bi foofu pour mu wow weer ko moom mu foofu maanaam te foofu il faut nga am néeg bu bu aéré waaw fu aéré fu aéré te bañ a nekk ci mbedd tam naaj fu am fu am naaj dañuy wax nga moytu fu am naaj moytu fu tooy humidité parce que mu guus waaw parce yooyu day indiwaat beneen mën na tax garab gaaw a xawul. waaw moisissure bi day ñëwaat kay garab day gaaw a xawul subaa mm-hmm. wala mu demee bu bu xawee kii bu mm-hmm. ay bactéries yoo xam ne mën nañ ci développé. waaw waaw donc euh, la mu waroon def. wala foofu foofu mu foofu mu wow carrément. dëgg donc bu defee séchage boobu tamit kenn mm-hmm. day demaat ba ci soxla du moo tax ci ker nga koy weer. donc noonu la noonu mm-hmm. de préférence tamit xam naa ne loolu sax bokkul woon ci leçon bi mais nañ ko mm-hmm. soo soo amee ay moustiquaires. Mm-hmm. soo lalee eh, kii bi. xob yi. nga jël yi weer ko ci kii ko ci nga xam ni. même bu naawul mën a. du mën a atteindre du mën a ñëw ci ci xob ci xob yi. fekk weñ ñi duñ ci mën taxaw mën a taxawaay dara du mën a naan sa bopp ba mu yow. ba mu yow dëgg bu ko defee nag loolu mooy tax nga am mu garab bu baax quoi. côté hygiène bi la hygiène bi wala moom côté côté hygiène bi quoi. donc mais yooyu nag ñun duñ ko respecté. waaw gars yi moom man ñu ngi noonu rek. waaw xam ñoo ne bu ñuy defar comme dañuy defar di jox nit ñi rek seen yoon du si seen yoon voilà. léegi sax ñu restaurant yi am bu ñu desalee ay ceeb tàngalaat ko defaat ko ci ceeb ba ñuy togg suba. pour yooyu yëpp mi ngi ci dëkk bi. ci dëkk bi waaw ñoom bu ñuy wal café di jaay walaale ci ay xooxu bu yëg ay xooxu kenn xool dem walaale ko jaxase yow bu safee jar loolu doo ko mën a xam wala nga saaf dañee ba pare diw gi des nga denc ko ba soo nga ñëwaat waaw waaw waaw te diw boobu bu sens sens nga ba pare nga kii ko soit nga lakkaat ci voilà ndax nit ñi duñu duñu mën a wér waaw loolu tam te nit ñi duñu xam dara da leen jënd utiliser rek waaw même bi koy sax xamu ci def moom yaakaar naa ne dara baax c'est vrai yaakaar naa ne baax na fekk baaxul santé mm-hmm. doomu aadama donc la jamono yi ma gisee ñu xewal ci dëkk bi eh, xool yi soble di jaay li koy mbuus di jaay. Mm-hmm. daa jékki di rek xew. xew waaw ku koñ booy am kenn ko fa teg taabalam. Mm-hmm. di xool ay soble ñu ko mbuus jigéen ñi am taayal ba de. bu bu bu defee yow soble bi nga doon jënd xooleel sa bopp muy jooy say bët ak yooyu peut-être ngay dem di ci mbuus bi. man dama ko commencé gis rek waaye dama leen bu fexe leen ba bu kenn dugal bu soble bu soble bu ñu xool li teg ko taabal jàng ko ba mu fees dell weñ ñi taxaw ci yëpp voilà après waa ji mbuus ko ngeen dem mu mbuus ko ci mbuus mbuus bi amul air ci biir mu teg ko fa ay waxtu nga jël ko yow jëw ñëw ci toog originalité soble bi dëgg nekkatu ko soble boo ko xoolee exposé ko am na luy nekk ci biir loo xam ne day dem mhm. day dem effectivement voilà am na luy ci caf ko lu ci nekk luy jëriñ principe bu ci nekk day dañ day day am exposé noonu day dem voilà mooy li ngay wax rek mhm. euh, xob yeeg yëpp ñu ko ñi ko te consommé wuñ ko directement mais dañ koy joxaat ay doomu aadama mhm. ñuy bàyyi xel ci ci loolu ci loolu voilà léegi nag yow li nga fi wax nag ci condition ku koy wutal sa bopp nag moom comme sa biir la jëm mm, <laughs> di nga respecté <laughs> obligatoirement même bu jëmul sa biir nag koo am tam da ngay faj di ko def tamit nga respecté doomu aadama yi parce que tamit euh, yàlla gëmul nelawul de sa mhm. nit ñi dañuy fàtte loolu tam ñaare dañu fàtte ne boo làqatoo di togg lu bon di jaay nit ñi wala di défar garaw yu bon di jaay nit ñi maam nit ñi ñoo la mënut a gis ñom mais yalla ngay gis. mais ki leen mom mom té fonku leen. té bëgg leen trop nak parce dañu bëgg parce que couleur yi ñuy def ci kaw suuf ci mbaay fi. doon na ko xàq kon xam nga bëgg na nit ñi yalla ko bëgg nit ñi la. <laughs> parce que yëpp dox yi fi def yëpp ni di rayante dafay affaire. ba pare mu bàyyi ñu fi nii rek mel ni moom nekk fi nekk yow rek noonu waaw xam nga loolu kon daf mm-hmm. léegi nag kenn ku nekk si ñun booy jëflante doomu aadama nga fàtte ni yàlla kat ñii ñoom bëgg la te mu ngi gis lu may def ci ñoom nii mm-hmm. mu amee moom rendez-vous rendez-vous mu ne ma yow waa sama gars yi ma joxoon fii yow doon jaay waaw ah, xam nga ngam du problème la te nag bàyyi ko xel la bu baax mm-hmm. yàlla daa bëgg nit ñi te mi leen di contrôler koy def si ñoom lu bon tamit question de taal bi daal la caw. dina ñëw dina ñëw waaw loolu daal bàyyi ko xel baax na. Mm. kon professeur vraiment daal su xam naa mm. boo moom tam loolu loolu mën a dolli ba léegi ñu jël de mm. sinon parce que am na solo trop. waaw am na solo mais xam nga Pape bi moo li nga wax rek. nit ñi nañuy bàyyi xel yàlla lu bari. parce que tamit euh, waxuma sa bàyyi xel mais doomu aadama yi ñoo représenté yàlla ci kaw suuf. comme ñoo représenté yàlla ci kaw suuf rek jàppal ni. lool leen def yàlla nga ko def maanaam. Hmm. loolu sax la ah, effectivement parce que yàlla moo ni ñoom ñoo nekk xalifatun fil ardi ñoo nekk xalif sama suuf bi. ñoo hmm. fi représenté. kon yow jàppal ni loo def doomu aadama ci lu bon. Hmm. yàlla nga ko def. loo def doomu aadama gi ci lu baax hmm. yàlla nga ko defal bis dina ñëw ne mu fay la lu baax hmm. wala bis ñëw mu fay la la nga def yàlla laal du fay lu bon du fay ah, lu bon waaw la nga defoon rek yàlla daa yor foofu yu baaxam yu bari hmm. ku def lu baax boo ñëw bu jël ci yu baaxam yi jox la sama lu baax rek la ku def sa yu bon boo sa yu bon yaa ko indaale <laughs> mun la ak yemal yow desal ak loolu rek nga daal di am problème nag xam nga nag yaa ma yaa ma yóbbu xam nga suñu problème. <laughs> yaa ma ñun Sénégal. Oh. Sénégal laa xam nga moo tax ma ñun Sénégal dañoo gëm yàlla. Mm-hmm. mais wóoluwuñu yàlla. waaw am na loolu la. la dañ ah, koo gëm mais wóoluwuñu maanaam li ñu yàlla wax ñoom gëmuñu ko exemple. ah dëgg la dañuy ñuy jëflante parce que bu ñu ko gëmee mm-hmm. ni ñu ci jëflante gi. Mm-hmm. dina feeñ ci ñun. dëgg la euh, exemple tey. exemple tey rek bu ma jox leen exemple tey ñun gëm nañ ni mhm. man tey fi ne tubaab ba nekk wala Sénégal sax bi nekk Italie mhm. mhm. su ma envoyé woon Riyal ma dem récupérer waaw c'est sûr loolu wóoru su ma envoyé woon Riyal xam yéen a ngi ngeen ma envoyé ngeen ma envoyé dama koy récupérer wala déet te pourtant ñoom bu ñu may xaalis seen xaalis seen xaalis euro wala dara wala euh, wala dollar dañ may envoyé mosuma ko récupéré nu ma ko récupéré. Ah, li fi am te pourtant gisuma ko. Ah, ay code rek la dugaloo. waaw récupéré. kon war nañoo mën a gëm ni. boo defee lu baax. fii yàlla fayee la ko xaalis bu ñuy wax tuyaabu ko de. waaw. dëgg la de ca àllaaxira. aussi simple boo demee foofu koy récupéré. na nag def lu baax boobu nag. Mhm. ñun daa mel ni daal dañ def dañu yàlla dañ cee tënk. Mhm. du ba duñ ko mën. sëñ bi na rek. yàlla na ci yàlla musal. waaw te léegi nag war nañoo préparer suñu bopp bu ñu demee àllaa ñu fekk fa euh, tuyaaba parce que foofu CFA amu fa dara amu fa. Mm-hmm. mais tuyaaba moo fa am mais tuyaaba boobu nag fii nga koy liggéeyee avant ngay dem. waaw dëgg la te fii ne aller bu am retour la. foofu aller bu amul retour amul retour. Ah, waaw ah, ah. egg nag naan su ma yëgoon. su ma yëgoon moom dara ko bëri. waaw li El Hadj Abdou Sakho di wax rek. incha allah yaa ngi fees dell xaalis. Mm-hmm. te armée yi moom mosuwaat sax nekku fa. Mm, dëgg la rek. c' est vrai c' euh, est vrai di bàyyi xel ah di fa di fa di fa di fa di fa dugal dara di épargne foofu baax na baax na trop ah, eh, macha allah <laughs> am na solo ñuy jégalu si guddal bi mm. euh, mais euh, waxtaan bi léeg-léeg moo koy laaj voilà moo koy laaj xam ne tam judo yi nekkul télévision buñ toog ay journaliste toog ñuy def ay débat non non dañuy waxtaan loo xam ne jàpp nañ amal na njëriñ nit doomu aadama ñu jàppee kon xam ci biir def la journaliste nga ko ñaan journaliste bi dafa def du jaay journaliste dañoo toog di waxtaane ne jàpp nañ ni dinañ amal ñu ñu njëriñ ñun ñu koy waxtaane hmm. ku ñu seetaan tam xëy na si jàngee dara hmm, loolu moo tax koy pour kon ñu bàyyil nga tàggatoo professeur vidéo bi di ñëw sëñ Pape maa ngi lay nuyu di la ziar di baalu ñëpp rek comme ni hmm. ñu fi waxee lu jaadu ñu ngi jéggalu ñëpp rek Hmm. doomu aadama war mais nag bëgg lu baax hmm. bëggal nit ñi lu baax tamit hmm. moo tax ñu koy ñu koy wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullah